man damay bëgg a waaru ci Sénégal xaw ma dama seetaan les quelques extraits ci émission Maïmouna Ndour fay bi mu expliqué ci problème mu fisc bi di expliqué ci problème yi nga xam te daf ko am ci affaire finance gi demee noonu muy expliqué di wax quoi di di détaillé ci lu jëm ci moom dundam ci télé bi 7TV ak yu demee noonu ñu laaj ko ci Bara Ndiaye ci ni ci ni mu waxee da ngay gis ni kii dafa xiifoon Bara Ndiaye vraiment bëggoon na koo tontu. parce que aussi xamul woon mais instant da nga gis ne kii dafa yàkkamti woon tontu wax ci Cheikh Bara Ndiaye nee na nag porte na ko plainte mais moom porte na ko plainte mais li Cheikh Bara Ndiaye wax weddiwu ci dara ci tele bi parce que Cheikh Bara Ndiaye waxul dara lu garaaw ci moom ah Cheikh Bara Ndiaye dafa joxe information rek wane ni kii yuuxu yi muy yuuxu di wax ni fisc bi daf ko topp yépp du loolu moo ko tax a jóg na wax sénégalais yi dëgg que ni moom teleem bi dafa am ñu mu amal problème ba war leen a fay lii war fay laa ku dem bis sàngam tribunal am na fa jugement ak diw sàngam ci affaire tele bi ndax kooku da cee dugaloon lii mais li Cheikh Bara Ndiaye wax wax weddiwu ci dara weddiwu ci dara donc loolu mooy dëgg ku ko seetaan weddiwul dara li Cheikh Cheikh Bara Ndiaye ko dara lu garaaw ah. maanaam li nit ñi xamul woon ni ñu tëggee seen TV seen set TV loolu la Cheikh Bara Ndiaye wax wax ñi mu amal problème wax lim leen yoreel ak affaire yi naka la demee Cheikh Bara Ndiaye leeral ko amul dara loo xamante ni mënu ko cee yóbbu ci yoon ba Cheikh Bara Ndiaye am ci dara par man je conseille à Cheikh Bara mu porté ko plainte moom parce que Maimouna Ndour Faye saaga na Cheikh Bara Ndiaye ci émission bi traité na ko de de fenkat traité na ko wax na ko ay wax yoo xamante ni da maanaam bu ko ci Cheikh Bara Ndiaye porté plainte diffamation mu am problème damay ñaan Cheikh Bara na ko porté plainte na jël vidéo li mu wax lépp ci moom wane ni ay garabu garabu la triant la escroc la dafay nax nit ñi day def day def naa mu porte ko ci plainte ci loolu mu ko wax noonu loolu loolu la ko Cheikh Bara Ndiaye def ndax ñi ko bëgg ndax ñi koy suivre na ko def na ko porte plainte ci émission bi mu def tey maam xol la waxee dafa yàkkamti woon baara Bara daf ko yàkkamti woon ba wax ba maam da ko cee da ko mere mere ba bi muy wax sa contrôlé wul boppam traité na ko de n'importe quoi saaga na ko xas na ko sosal na ko ci émission te moom li Cheikh Bara Ndiaye wax Cheikh Bara sosalu ko de lépp lu Cheikh Bara Ndiaye wax wane dafa ameel bor dafa war a fay lii ak lii weddi wu ci dara donc man je conseille à Cheikh Bara ku ñu mën jàppale émission vidéo ba mu jot ci na jël ay avocat jël vidéo bi may Maimouna Ndour Faye def tey ñu mu porté ko plainte dëkk bi dëkku yoon la yoon la ñu àtte mu porté ko plainte te mu wax ñi moom it vraiment Maimouna agression bi fan la ci toll ci porte plainte bi waxoon ni def na ko gars yi ko agression fan la ci toll ci tappale képp la ñu nekk ak caaxaan